ñu bàyyi ko di ko éviter ci ay émission télé muy dem bi bëcc ko dara ka am ñu koy gis tey bu ma ko defoon wala keneen def ko bu subaa yaa ngi ci kaso kon lan mooy nay lan moo ne ci gannaaw man doonte damaa ànd ak président Macky Sall maa ngi posé question lan moo ne ci gannaaw ñu bàyyi mbir mi di continuer di dem loolu nag danaa ko posé question laaj maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tàng naa tàng naa